بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تفوت هيمنته صغيرة ولا كبيرة والصلاة والسلام على عبده الناظر بعين الذات إلى عين الذات وعلى آله وأصحابه الذين هدى الله قلوبهم للإيمان فاهتدت ورضي الله رضا خالدا عن الأولياء المؤمنين الذين كان لهم في رسول الله أسوة حسنة بك جلت إني دقلو كي سفينة اف 98.2 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di leen ziyaara di leen baalu xaq di ñaan yàlla subhanahu wa ci mbaaxam mu boole ñu baal di ko ñaan li nu koy jaamu mu nangul ñu ko ca na mu toll te bañ koo nangoo ci ni ñu toll ñun ñu di ko ñaan bu ko nangoo mu làqal ñu ko fa yàq àggul ci barke yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa seen mbokkum taalibe alxaaji abdul aziz fall moo dellu siwaat ci daara ji ci seen waxtaanu tasawuf ki nekk ci technique bi sunu mbokkum bopp sàmba si ñu koy ñaanal yàlla tawfiq ci liggéeyam ñu ngi nuyu di ziyaara di ñaanal suñu directrice su bopp soxna ñu ma ba yàlla yàlla defal ak taysiir moo mbooleem ñu koy jàppale fa tabaarakallah di beral nuyoo ak ziyaara ak ñaan boroom kër gi di xarit di soppe di wëllëre di nit ku yàlla baaxal di alxaaji cerna Xamidu Baan ñaanal ko yàlla tawfiq ak taysiir ak najaax fa tabaarakallah ni ñu ko waxe woon ci waxtaan wi weesu ni li ñuy bañ ba tax ñuy wax mooy nit ki jaawaloo te li waykat bi wax ni wa tazumu annaka jurmun sagirun wa fiikam tawa alcaalamu al akbaru yeneen nit su xamul boppam lu mu gis ci àddina bi loola day rëy ci moom ba mu xeeb boppam moom jël loola di ko jàmm te yëgul ni yëgul ni moom nit àdduna bu rëy bi ñi bi mu taxaw ci kanamam mu yéem ko moom nit ki mooy monde bu mag bi mooy alaalamul akbar monde bii muy xool mu koy yéem mi ngi ci biiram moo ko ëpp téeméeri junni yoon moom nit loo xam ni yaa ko ëpp taxawee xool ko mu yéem la ba nga jaamu ko jaawaloo nga ba tax bu la àdduna yéem àdduna ci boppam bu mu la yéem jéggil àddina bi dem ci ki defar àddina bi waaw li ngay gis bu mu la yéem ki ko def te kenn gisu ko na la yéem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 cheikh nee na ko lakinna zaataka la tura waaw ah. ah, waaw la illa kama tandakku qurba jalaaliha alaamu ah. li mu bind moom yàlla ñun bu ñu jógee rekk naan juróom-ñaari asamaan juróom-ñaari suuf loolu la hawla wala quwata illa billah waaw ah, yàlla ëpp na loolu ah. yàlla bind ëpp na loolu waaye loolu li muy rëy rëy ak li ci nekk li mu la yéem yéem waaw ah, moom mi làqu di ko doxal ci kàttanam gisuloo kenn ku ko dimbali asamaan du paan suuf si du paan ah, jant bi du paan weer wi du paan hmm. waaw mu làkku fa mu nekk kenn gisu ko lu tax kenn mënu ko gis bu ko sàkk woon it ah, nga dawal sa xel ni ponkal yi ulul azmi min rusul al boo ko sàkku woon la leen di dal moo leen moo lay dal waaw jëlal misaal yont yàlla yont yàlla Moussa alayhi rabbi arini anzur ilayk mu demee moom yont yàlla Moussa alayhi ba formation dëgër ba ruuxam am kattan mu ni yàlla nag ay li ma bëgg mooy nga muri rideau bi dox sama digganteeg yow ma gis la Alla <laughs> ni ko bëgguma la lor ci Yàlla Moussa yàlla ni kaa yàgg montagne bi nga dendal ku ëpp résistance ku gën a dëgër ci Yàlla Moussa ni ko montagne bi ma gën a dëgër yàlla ni ko geestu ko xool ko allahu akbar walama lamma tajalla rabbuhu lil jabal jaalahu dakkan laa ilaha illa allah illa kama tan qurba jalaaliha alaamu qurba jalaaliha waaw moom yent yàlla Moussa xaw ma bu taxawoon ci montagne bi nu muy mel waaw tëll gaaka xamloo te mu nga sore montagne ba lakinna zaataka laa tura illa kama tandakku qurba jalaaliha la alaamu ko nag man naasu mal akwaanu mal malau alladi fi ljawwi mal aflaaku mal arqaamu mën naasu nit ñi li ñuy bare bare nekkuñu lu dul waaw mal akwaanu ak waan yi univers yi li ñuy bare bare lañuy ñuy ëmb nekkuñu lu dul man naa sumal ak waanu mal mala ulladi fil jawwi ah, al mala waaw ah, ñi nga xam ni tabarkal la yor service yi waaw ah, ci awaalim yi waaw hmm? al mala ul aala الناس ما الأكوان ما الملأ الذي في الجو ما الأفلاك فلكي أوربتي أرقامي chiffres yi nga xam ni ci la mbir yi daw illaa gubaarum taara min quturi sama illaa gubaarum taara min quturi sama nekkul lu dul as poussière rek waaw <laughs> poussière rek waaw waaw ngelawal asamaan upp waaw waaw su ngelawal asamaan sànni waaw wa min asamaai min al umuuri idaamu waaw na yu nekk foofale yoo xam ni waaw ñoo ëpp doole téeméeri junni yoon gën a màgg waaw nag axkamta sayral xalq waaw ah. sa kattan ak sa xereñ sa kattan ak sa xereñ ah. ci nga ñëbe waaw ah. nga bind lépp ak li aju ci dundam ak doxalinam dara ëppul dara yiisul dara dara dara rëccu la للهدف الذي عجزت بدرك طويه الحكام كن كوني فانك جوخاني دوكو موي كن كوني فانك جوخاني دوكو موي لولو تبرم خم خم ييب لولو تبرم خم خم ييب بني داجالو وون مونو نيوكو Yeah. اه. Mm. dafay nekk waaw ca xalaat ñi bàyyi àddina bi ni yënn di xalaat ci loolale nga xam ni buñ ca soree rekk mu indi leen ci yow fa gadat qulubul aashiqina jamiuha garadan taduqu ka annaha angaamu hmm? waaw ñoo dem ba li alquran wax wa yatafakkaruuna fi xalqi samawati wal ard rabbana gis nga rabbana jéggi nañu asamaan ak suuf ak la muy rëy rëy pourtant ci la doon xool di xalaat la doon xool di xalaat ñu xëy jéggi ko fa ñu ko rabbana yowa yowa asamaan yéemuñu suuf yéemuñu yow ya yaanu yéem ah li nu wóor dal moy ma khalaqta hadha batilan ah buur bu mag ni yow tedd ni yow ah caaxaan deful caaxaan taxul nga def li nga def moo مولانا سيد شيخ احمد التجاني سي المكتوم رضي الله عنه باتي ويم بوبو الغرب اصبح عالما مجنونا موني اوكسيدان دافا دوف موني وخال يو نيت الى لا تنظر الدنيا بعين كونت من طينه لو كنت فيها طينه laa tambuli dunia addina bi ak li muy rëy rëy ak li ci nekk boo ko dee xool di ko di di di jublu ci jàng nee na bul ko xoole sa bët bii nga xam ni ci ban lañu ko bind mënul sore bët bii sax ci sa bopp nga xam ni ban lañu ko binde gis-gisam sorewul laa tanduri dunia bi aynin kuwinat min tinatin wa in kunta tinan yow doonte lee yow ci sa bopp ban mooy sa cosaan ay booy jàngate àddina bi bul ko jàngate sa bët bii waaw ah, law kunta fiiha tinan doonte lee yow mi moom bët bi ban nga waaye am nga lu la yàlla defal leneen am na lu la yàlla defal leneen waaw loo xam ni newul ci bët bi mu ni ko loolu mooy lan mu ni ko bal fanduri dunia bi kulli basiratin yaa law aqalta bi amrihi takwina law aqalta na bi amrihi ko booy jàngate àdduna bi bañ àdduna bi dem ba yéem la ba nga ëppale ko sa bopp waaw na seexale sa bët bii ak beneen bët te moo di sa bëtu xol ah na nga sa xol associel sa xol ah, ndax su bët bi kese demee te bëtu xol ñëwul boo xoolee àddina bi mu yéem la nga wëlbatiku jàppe sa bopp yaay jaamu àddina bi te àddina bi mooy sa jaam waaw waaye boo ci boolee bëtu xol bi nag ah mooy waral nga wàcc ko delloo sa bopp ci ki nga xam ni mooy sa sang boo ko nangulee rekk doon sangu leneen lu mu bind dara du réyate ci yow ku dul yàlla sa boroom waaw bëtu xol xol xol al qalb huwa al aalim waaw xol xol rek moo mën a dégg yàlla su gàttañ luwul am xol waaw su gàttañ luwul waaw su yitteem gàttee nag waaw nga fexe ba keneen occupé ke ku dul yàlla dootul dégg yàlla القلب هو العالم بالله إذا لم يقتصر وهو المتقرب الى الله خل رك مو من امت نيت من امت نيت فان لكو جيمي ني نتي يالا لكو جيمي واي نك اذا لم يعم ني ني كاج لكو من موم خول ñu ni ah su bëtam muuruwul silma xawul waaw innaha la tamal absar walakin tamal qulub allati fi sudur لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لولو ريك ورنا لا ني لا بت بي سبب دو بتو خل موي جيس la nee na bët du muuru xol mooy muuru bët du silmaxa xol mooy silmaxa waaw tabaarakallah ahsanul xaaliqiin wa huwa al aamil lillah ñu wax ni xol rek moo mën a jëf yàlla cautionné jëf ja ñu tax yéene ba ah yéene innama al amalu binniyaat ah jëf june yéene ba ko tungoo mooy sabab ñu nangu ko walla ñu bañ ko nangu te xol mooy yéene bu yàlla feesee sa xol loo def yéene ba rafet yàlla nangu waaw su fa yàlla nekkul nag waaw yéene buy tax jëf ji ñu cautionné ko du fa nekk waaw ah shirk mooy mujj nekk ca palaas ba waaw ñu ni alqalb huwa saa'i ila xëy ni bëreet rek waaxu jëm ci yàlla ñu ni xolo ko mën waaw waaye nag ida lam yu qayyad bi qaydi cheytaan waaw bëreet waaxu jëm ci yàlla ñu ni xolo ko mën waaw la daloon waaja waaw ñu nattoo ko rekk muy jël sàngara topp bopp bakkanam ah jël sàngara man bi ba mënatul dox waaw ñëw ci eh, eh, wetu garab ga rekk tëdd ni eh, xaaral ma reesal ko fi waaw naka la tëdd jaani ñàngur ji yiir gis ko ni ah lii de du muur muraake la sama dangar gaa ngi may bëgg a rey xaaral ma ñëw sippi ko ko man ma féex moom mu dee waaye nag wala yauduhu xifduhuma wa huwa al aliyu al azim cheikh nee na yàlla sàmm li ci kaw asamaan ak suuf ba mu mucc diisu ko tiisu ko waaw diisu ko tiisu ko jan jay wàcce jëm ci moom yàlla yabal mbott ak mbott waaw lu yéeme waaw mbott ma ñëw fekk jiit ñuy wax jànkalaar mbott mi ñëw rek sëgg jiit ji yéeg mbott mi féyeeg moom traversé dex gi egsi fekk jaan ja di bëgg yegsi ci waa ji jiit ja tampaloog jaan ji fett ko te jaan du am góom fett fett jiit day rey jaan waaw jiit ja fettee bàyyi ko fa muy xalanku moom jaan ja di xalanku talatul waa ji boppam la tal jiit ja yéegaat ci mbott mi mbott mi dellawaat ko waa ji nelaw ba sàngara sa man di mu xippi ndeysaan ndeke am na ku doon xool am na ko doon xool seet bi defe naa góor gi góor gi Zunnun Zunnunul Masri yi moo ko nettali suma jumul waaw hmm? waa ji yeewu góor gi ni ko waaw sa digganteeg sa borom dama bëgg nga wax ma bi ngay tëdd fii ban yéene nga tëddaale ban yéene nga nelawaale màndikat bi ni ka ah, xam naa ni musiba bu ne def naa ko waaye dem naa ba sama xol ah, xippi ah, ma ni dellu ci yàlla jot na nag waaw bi ma màndee ba mënatuma taxaw ma yedd sama bopp man yaa su mandite bi reesee waaw benn yitte laay am mooy fexe seet kan lay gis mu orienté ma ba ma génn ci musiba bi ma nekk waaw waaw jox sama bopp yàlla te su boobaa fu yàlla am néeg ci kaw suuf ñu koy wax jàkka waaw danaa fa teg sama tànk fii waaw setal ko sellal ko julli fa ay ràkk yéene ko yàlla sama borom bët gi ni ko waaw kay innama al amalu binniyaat yéene boobu nga tëddaale mu ni ko yéene boobu mu rëy ci yàlla sa boroom mu ni ko xoolal jaan ji mu xool jaan ji ci wetam mu nettali ko mbott mi ñëw ak jiit jéeg lépp solaar bi ni ko looloo am mu ni ko lal bi ni bërët du waaxut dem mu ni ko ilaa foo jëm mu ni ko maa ngi jëm ci yàlla jot na waaw waaw jëm ci yàlla jot na xam nga ni kooku seytaane da ko jatan noon waaye dagg na buum ya waaw yàlla dagg na buum ya ca mbaaxam waaw moo tax yéene lu rëy la waaw moo tax ñu ni xol huwa almukashif bima inda allah wa ladayh ñu xol xol rek moo mën ni jàkk yàlla boroomam dootu ko ko teggi ndax dootul soxla leneen ku ni jàkk yàlla dootoo soxla leneen la mawlana sayiduna aliyin karamallahu wajha doon wax naan raaytu rabbi bi ayni qalbi raaytu rabbi mu ni gis naa sama borom moom sayiduna aliyin ñu ni ko i لا تدركه الأبصار فهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يلا نين بت منوكو جس يعني بت بتو بان بي مو منو الجس يلا وهي من بتو خل بي بو سل ينغ جس كتمن بوبو سل بوبو تاك رأيت ربي بعين قلبي مني مك متلني من دينا جامو كومدول جس ني اوبنا لول دوما جامو كومدول جس gisul jëmm ja xol bi mo dem ba dootul sikki sak ci yàlla boromam ha ñu ni bu fekkee muuruñu ko motax mu ñu ni innal qalba la yasda wa innama al jawarih atba wa khadam wa alat yastakhdimuha al qalb wa yastamiluha isti'mal al malik lil abd wa istixdaam arraaci lirraiyati wa saamic lil aala waaw ñu ni xol waaw xol day xomaag waaw ñu ni waaw mooy kilifa gi cër yëpp xol la déglu moom lañu ñu ommato topp ko lu ko dal rek mu wàll ci cër yëpp crime dañ ko top rek ay serviteur am lañu lu dal xol bi rek dal len ku so xol muru rek sey cër jëf jëfinu jëfinu rab تبارك الله أحسن الخالقين كو ku sa xol muuru rek say cër jëf jëfinu التخميني وهو المقبول عند الله ñu xol rek moo mën a présenter jëf yàlla nangu jëf ja waaye kañ lay nekk nag ñu ni ida salima min xayrillah waaw jëf ja muy présenter yàlla ci charte pour yàlla nangu jëf ja bu mu ci associé keneen ku dul yàlla waaw waaw ni ndax bu ci associé keneen rek yàlla génn ci bàyyi ko kooka te su boobaa kooko dafay def écran digganteem ak yàlla dootul dem moo tax ñu ni xol xol ak xel dañu doon waxtaan ñoom ñaar waaw hmm. ñu xel ni ko انني ارشد الضال الناس الى الطريق خل خل نيكو غيس نغا آه، من من آه، من من غاتيا غالا ما من خمغا لوي سما ميسيون وا آه، مونيكو كو كو كو واتي كو سانكو ولا نغا فاتي مو امات لا ديلو سي خل نيكو انا العقل على الارض غير ان مروري فوق الفلك انظر الى مدى اصلي xele ngay bàkku de ni ko anal aqlu ko man ngeen di woowe xel ci kaw suuf ba mu mel ni màgg yéen a dëkk màgg yéen a nekk waaye maa leen sore inna muruuri fawqal falak waaw ko ngay baabante ca euh, euh, kaw falak ba waaw bi nga xam ni ca la di daw ah al madar alladi yasbaxu fihi al jirmu samawi nga man foofa lay doxantoo man xel dama sore waaw ni ko inna shughli fi dunya huwa al irshad sama metti ci aduna moy orienté man xel fa ana mithlu sayid al khadir jarih al qadam xel a ngi bàkku de ni ko man mak sayyidna al khadir ha ha waaw sayidna al xadir ca tànkam boobu muy soox <laughs> ni ko mag moom ñoo ñoo ñoo niroo mission waaw xadar liy métier muy orienté gindi ay nitu yàlla ah dina na fu ñuy jaar ana al aql mufassir li kitaabil kawn ko mën a xel waaw waaw mën a xel mboolem téere yi nga xam ni ci lañu denc al ilm al al al mansuur fi fi fi safxat al kawn téere yi nga xam ni xam-xam bi nga xam ni kenn du ko bind ci paaj yu téere waaw waaye ci page yu univers bi ci lañ koy ci lañ koy ci lañ koy rëdd ñu ko man xel maa koy firi lu mu bon maa koy firi man xel maa koy leeral waaw ah. كمان ميلة من خل آه. أنت القلب نعم قطرة من الدم لكن وأنا يغار مني اللؤلؤ المتلألئ الأحمر خلني يا ولا خل داكور خل يا لومبو دارت نغا دارت لومبو دارت نغا منيكو واي من خل ورس آه. آه، ويمل خاتي تشر daf ma ñee man xel wurus daf ma ñee ma ngay فقال القلب بعدما سمع هذا ليسان هذا كله حق ولكن انظر الى من انا خول نيكو ليغا واخ ليپ ديغ لا واي ماك ديغلول ما واخ لا ماي كان انت العقل تعريف سر الكون نيكو يا واخل yow la xel xam nga ni univers bi doxee xam nga ni muy doxee ah wa wa ana aariful baatina ni ko man xol nag lay doxal univers bi laa xam ka koy doxal waaw waaw yow univers bi ci nga yem moom nga xam man maa nga ca kay doxal univers bi te moo di yàlla rabbul izzati wal jabarut man kooko la amal affaire ah anta tataallaq bi madahiril kawn وانا اعرف الباطن نيكا يو خل اصح خم خم ميغي يمشي لي نوي جيس مو فاج تي انيفير بي كوم مان نك اه ماغا تي كا ييغال لي ييغتو اه داني واخ ني لو ييغول لنا لا كو ييغال لك اوب دوله اه نيكا مان مالا غنا خوت نخ ماغا تي رب العزه والجبروت kooku la amal affaire waaw xool ni ko innal ilma minka naam waaw ni ko yow xel xel yow xel yaay jàng yaay mokkal waaye nag wal maarifatu min nii xàmmee distinguer ni ko man xol anta tatlubu l ilah wa ana mudhiru l ilah xol ni ko yow xel da ngay sàkku yàlla waaw ah, ni ko man nag waaw ah, ah, man nag ci man la yàlla di feeñe waaw koy feeñal koy feeñal waaw maay fees dell ak yàlla ci sama xol mu génn feeñ ci samay waxin samay jëfin samay cër ni ko yow dañ koy wut man dama koy feeñal waaw nit mën na wut du am ni ko man nag sama métier mooy yalla yàlla hmm. inna alwusula xol xol ni ko inna alwusula ila قمة العلم يحدث حالة من الاضطراب xol ni ko te gis nga yow ci risque nga nek ndax xam-xam découverte yi yaa koy def ni ko waaye bare na ko fakkastalu te dafa dem ci xam-xam ba naw boppam waaw dem ba mujj mu mu mu mu li ñuy wax mu perturbé wu ëpp waaw ñu ni géej gi ëpp na bu ëppee rek dugg ci biir kër yi yàq ko ñu wax agitation mu ni ko waye yow itam ci risque nga nek yow xel amna fay tollu ci xam-xam rek di jaxaso mu ni ko amma ana al qalbu fa dawaun li hada al marad ni ko nak jàngoro bobu di dal xel ba borom di sànku dem ci xam-xam ba ba ba ba dem ci pouvoir ba déborder Ah, mu ni ko man xol jàngoro boobu maa koy faj wax na dëgg waaw man xol may faj jàngoro boobu moo tax ma ni la sànq boo associé sa bët bëtu euh, bopp ak sa bëtu xol boo xalaatee mu delloo la ci yàlla mu ni ko daal xol ni ko anta chamaatun li mahfali sidq waaw ni ko fu ñuy feetale dëgg ñuy feetali dëgg yow xel yoway sondeel ba ñu fay taal pour mu leer mu ni ko wa ana misbaaxu maxfalil xusn waaw ni ko nag lu rafet lu jekk waaw lu rafet lu jekk waaw luy bégloo yàlla sunu boroom fu nu koy feetale man xol may làmp bi koy niit waaw الله أكبر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه آه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك آه، خلنك أنت العقل نعم تتعلق بالزمان والمكان وأنا أعرف الطائر السدرة جبريل عليه السلام لا حول ولا قوة إلا بالله آه، يا يولا خل yow la xel yataallaq bi zaman wal makaan ni ko garabi jamono garabi espace ni يا yaa tag ca barab sàngam la waxtu sàngam la loolu sa métier la yow yaay picc ma tag ca garabu jamono ak garabu barab espace ak temps mu ni ko wa ana man xol nag aarifu taira sidra laa ilaha illa كما عمل آخر موي بيتشو سدرة المنتهى موي جبريل عليه السلام خمني بناوي سبحان الله فلدم خل نكو أي علو لرفعتي أي علو لرفعتي مقامي خل نكو واو اسكو من نتنا كون من سمو تير فمو طلو waaw yow zaman ak makaan temps ak espace moo la tënk ci nga yem waaw comme man nag maa nga ca kaw waaw mu ni ko ana arshu rabb al jalil ah ni ko mën a arashu buur bi arash man la moo tax mu ni moom góor gi bal fanduri dunia bi kulli basiratin nee na booy xool àddina nee na xóotalal sa gis-gis waaw te mooy na sa xol participer mu ni xee yaa law aqalta takwina bi amrihi waaw ah, ni ak neexoon nga dema dem dem ba xam li yàlla namm ci fekk lu amul doonul dara mu nekkal ko ah lu amul nekkul doonul dara yàlla subhaanahu wa taala nekkal ko التكوين التكوين في علم الكلام هو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود التكوين موي أم خرن أكتمو فكل نكل إكزيستيول نفخ منك نيب ci adan lañu nekkoon alhamdulillahi munshil xalqi min adamin ca seen burdatul madix fekk lu amul nga anal ko sirru boobu nekk ci loolu ak xikma boobu ci nekk ci buur bu tedde ni yàlla sëriñ Cheikh ni yàlla wa aqalta waaw ni ko aka neexoon nga saisir ko nga xam lan la ci yàlla nam ne mooy tax du du dara du fees sa bët bu yàlla feesee sa xol sa bët leneen du ko fees yàlla rekk moom mooy fees sa xol bu yàlla newul ci xol bi nag ay château ay gratte-ciel ay monument ay statue ngay taxawal fu ne nga def fa dara taxaw ni yëng di ko xool waaw ngay wër dem ca ahram ya ca pyramide ya Égypte fu nekk ñu taxaw fa di ko xool mu yéem leen waaw mu yéem leen ñu yéemu ca yéemu ba ah dagg biya mu jaral la nga dem ba foofa fekk rek bâtiment yi di yëng nga taxaw di ko xool mu la yéem moo na dem moom mi la yéem nit a ko liggéey xanaa li jaadu kay moo ñu yéemu ca ñaka doon liggéey waaw dégg naa ci Maulana Sayid Cheikh Ahmed Tijani Al Maktoum radiallahu anhu mu wax ni do eh, eh, eh, gone ga dafa laaj baay bi ni ko waaw ñii ñii tabax pyramide yi ñu ko defar ak jamono bi ñu ko liggéey nga xam ni matériel yi am léegi ci wàllu construction amul woon ni ko bàyyi nan lañu def ba ba réussir lii ci seen jamono ni mu yàgge eh, nee na góor gi ni ko doom ñoom dañu daawul déglu discours laa <laughs> ilaha illallah daaw ñu déglu discours <laughs> ndeke discours daal yóbbuwul kenn fenn tabarkalla tabarkalla eh, discours rek di tàcc eh, discours rek di tàcc wax nañu dëgg eh, ñi nan mbott yi sab nawet yépp ku leen bëgg tàccu sa baxaw <laughs> sa tool dina booy ah ah, ah rek yew yew bëgg na yew fajar ah bés bu set lu ne tëral ko woote nit ñi ñëw ñi discours suba ak ngoon bañ a kenn ba bëgg rek bu set ñu buum takk nit ñi ba doon pour ñoom ñu ko ñii nag ñoom daawuñu déglu discours gars yi discours ñoom ñu ngay takk buum di yéeg di xëcc acca waaw ñuy xëcc di xëcc di yéege moo tax ñu réussir lii waaw tax bu yàlla newul ci sa xol boo jàkkaarloog ahram yi rek afale tiit yóbbu leen fu nu yeggul te boo delloo sa xel ni nit a leen defar kon kay boo doon yéemu yéemul ci nit kooku nit ka sax bu mu la yéem yéemul ci ki bind nit ki ba nit man loolu ñu ni ahraam yi ñoom setal nañu seen bopp qaalatil ahraam ah qad qaalatil ahraamu inna xuluudaha nuqatun min attaarixi la tugniina <laughs> yow di xool ahraam yi pyramide yi ba mu yéem la jaaxal la ñoom ñu lay tontu naan la eh, bul tardeel sa bopp inna xuluudana waaw suñu durée beeg suñu yàggaay bi yëpp nuqatu min taarix yi ah ah waaw la tux nii naa waaw allahu akbar waaw waaw li ko màndarga bu nu histoire màndargal rek la waaw waaw soow ko soow ba mu jaral nit dagg bii ab yow jóge fu ne ñëw di xool waaye la tux nii naa waaw ban njëriñ la ñu amal ما قيمة الأوهام لو عينتها باسم الهياكل جملة تعينا الأوهام الأوهام يلا نول تيو da ngay tëdd rek di imaginer lu ne nga lu lu nekk ñu ñëw sa xel rek ngay naa fexe ba taxawal loolu al awham li ngeen di wax fantaisie waaw waaw hmm? ah, ah, tëdd di xalaat rek lu ñëw rek ah, nga def sa xel hmm? nii naa ko nataal naa ko melal nee na ban valeur la am ah waaw tabaxi temple temple waaw waaw tabaxi temple rek di teg dugg fa koo fay jaamu ay xërëm yoo fa def koy jaamu sa xalaat ngay jaamu koy jaamu sa bëgg-bëgg ngay jaamu ah, ah wërale àddina bi ba mu jeex fu ne nga tabax fa pour lan ban valeur la am lu mu lay jox ah, ku yàlla réyul ci sa xol lu yëngootu ci yow nga ëppale ko sa bopp waaw ku yàlla rëyul ci sa xol lu yëngu lu yëngu rek rëy ci yow waaw ku defee nag bala ngay am jàmm jëmmal ko nag mu nekk fa nekk yëngu di ko xool di yéemu ñàkk ci milliards yu dul jeex waaw ah caaxaan caaxaan caaxaan caaxaan pour lan c'est parce que yàlla rëyul ci sa xol waaw yàlla réyul ci sa xol waaw lu yëngu réy ci sa xol waaw dafee nga topp ko nag dang dang dang dang dang dang ban valeur la am maa qiimatul awhaam law ayantaha bismil hayaakili jumlatan taayina waaw nga dema dem ba tabarkal la tabarkal la waaw tabbi nag ci gaalu musiba te moo di alkibriya gis nga yàlla subhaanahu wa taala waaw ah, nee na fi yàlla war a tëdd ci xol su ko fa jàmm bi jëlee yàlla dina dem waaye dana fa bàyyi kàmb gu vidde boo xam ni lu ne nit ki dana ko defar pour remplacer pour pour remplir kàmb ga kàmb gu vidde googu ci xolam ndax da wut da ngay yëg ni nekkatuloo doo amati jàmm faw nga wut loo jàpp ah, ah, ñàkk nga yàlla ci xol dara munu ko remplacer ah, mu tax loo imaginer rek xëy nekk ca dang dang dang dang dang guddeeg bëccëg subaak ngoon bu defee nag iblis di la jay rek nag waaw boo réussir nag commencé yëg yëkkati sa mbagg nag di xaar ñu tàcc la ni lay yow la yaa réussir lu kenn mënta lu kenn musta réussir al ujbu al ujbu qaadal kibriya li jahannam yaa garbu hal lil kibriya tad'una waaw dañ Cheikh nee na rëy rëylu nee ku tabbi safara moo la fa yóbbu waaw mu ni mooy jàngoro tubaab waaw tubaab bu lay yaree nee na da tuuti ba nga tuuti te nga xam ni tuuti nga ngay bañ keneen yëg ni tuuti nga waaw ngay rëy rëylu waaw nee na mu ommat la nag moom rëy rëylu googu ommat la ba tabbal la jahannama moom sëñ Cheikh mu ne yaa garb hal tad'una lil kibriya parce que seen orgueil seen ñi nga xam ni musiba bi leen dal yëpp moo leen ko yóbbe moom ngeen ñuy woo pour convaincre ñu pour ñu ñëw fekk si leen ci ñoo lànk ñoo lànk ndax gisuguñu lu mu leen jariñ yéen Occident ah id annana nashqa min tawjihatiha hal hal fi l awaasimi min yadin tunjina yéen ñu coloniser xëy xëy xëy xëy tappale nax ñu ñi da ngeen di ñibbi bàyyi noog suñu bopp ñu libre ndaka colonisation bu bu bu bu mujj bi ngeen di xalaat tërër moo gën a bon bu njëkk bi ndax bee da ngeen dana eh, eh, rey nit ki mu jeex la ngeen nekk fi ñu xam ni yéen a ngi nag da di dem bàyyi fi seen bopp formé ay nit ñoo xam ni yéen la fiy nekkal ba àdduna bi tukki waaw des nègres blancs waaw ay nègres blancs seen dere ñuul te tubaab lañu amuñu soxla sax ci eh, seeni réew waaw tubaab yi lañu fi nekkal ah bi taw jihaatiha ko defee lu tubaab yi xalaat ni bu ñu la ko santee boo ko jëfee doon seen jàmm ba faw waaw moom lañuy ñuy xalaat tëralal la ko orienté la ci nee ñu ngi bëgg dee ñun waaw nee li tubaab yi xalaat di ñu ko tëralal nee na gisuñu lu mu ñu yokk lu dul tos kore ah waaw nee hal hal fi l awaasimi min yadin tugni tunjina mu ni waaw ndax dëkk yi dëkk yi rëy yi dëkk bu ci ne li ñuy wax al asima capital ba ah waaw mu ni waay ndax am na fa ku am kàttanu walluñu dimbali ñu bokk am fayday génnee ñu ci njaam gi ñu tubaab yi teg haadi ah, ah, iktichaafatun wa tilka zaxaarifun tasaa waraa tijaratin tuxwina <laughs> mu ni haadi iktichaafatun bés bu set ñu ngi def ay découverte di découvrir yeneen yu bees wa tilka zaxaarifun ay xoy yu yoo xam ni yi fenn ba noppi nag euh, euh, euh, nattu ñu nag ah organiser ko waaw commercialiser ko ci façon boo xam ni ñun dërëm bu nu am ñu fexe ba nangu dërëm ba ci ay iktishafaat ak zaxaarif yoo xam ni amul njariñ xoy xoy yu mbalit ah, ñu jël ko rek taaral ko ba mu rëy ci sa bët waaw ah, ñu ñu ñu ñu ne ay ca waaw ah, jaaye la ko loo xam ni boo ko génnee joxe ko dootu dootoo dund yàgg sa askan nga topp ci rek ah waaw ah tasaa waraa tijaaratin tuxwiina waaw waaw commercialiser ko waaw bu defee nag ñu ñu nekk ci gannaawam nekk jàmba faw waaw du nu jariñ sunu bopp du nu jariñoo yàlla laa tastarixu al agbiya min ajliha wajadu al xayaata ala dalaali rahina xoolal loolu laa tastarixu l agbiya waaw waaw ko defee nag nee na ijo yi ah wala ignorant yi nga xam ni ndeysaan duñu jëriñoo seen xel xamuñu guddeeg bëccëg xamuñu leen da jëriñ ak lu leen dul jëriñ dootuñu noppalu nag daw nag topp ci gannaaw xoy yu yooyu ak système bi ñi tëralal ñi daw rek ndeysaan la tastarihu al agbiya min ajliha waaw ah, wajadul hayata rahinan ala balali ñi dama dem ba seen dund ñi hypothèque ko japp ko otage mahbusa ah, te li liñ ko liñ ko liñ ko jàppe otage yépp ay tiaxan la ah, sankutel jëmul fenn ci biir ngay nek rek yow di wundilu mu nekk prison ci yow tëralinu tubaab bi nekk prison pour yow dootoo génn ilaa abadil abidin xalaatam lay jël ba tëj la ci tëj la ci moom tubaab dootoo génn ci prison boobu ba keroog ngay wuy ji yàlla sa borom lu ko jar mu ne nag moom Serigne Cheikh fahali taqaddumu bit taaxiri yushtara yaa man ala ususil hawa yabnuuna mu ni waaw mu ni waaw jaaxlewu leen fa hali taqaddum yushtara bi taaxur mhm. yaa man ala ususil hawa yabnuuna laa ilaha illa allah waaw ñu tubaab baaxul dina la jay dina lay jay bis mi taqaddum naan la da nga développé yaa ngi avancé waaw ah jëkk-jëkk rek dafi sondage réew sàngam raw na réew sàngam réew sàngam raw na la te yow la ñu la tëralal ba ba xëy jay la ni la ni la da nga développé da avancé màbb na sa jikko bi waroon a tax nga dem ci yàlla sa boroom léegi lan fan nga avancé ban développement ay bâtiment ay tali ay oto ay avion hmm? fecc tëgg ak fecc loolu mooy développement ku koy taaxur la ñoom ñi la ko xalaatal tëral la ko nga nekk ci dem nañu seen yoon bu yàgg moom lay wax toujours ci bu école yi tëjee ñuy organiser ay Oscar caaxaankat yëpp atum lëmm ñu ngay tëral di xalaat fan lañuy jaar doomu jullit ñi ba duñu dem ci yàlla seen boroom te dañu leen dañu leen di dañu leen di sélectionné waaw di leen jox ay moyens waaw pour lan nañu fexe ba nit ñi xale yi di tëgg di fecc duñu tal seen bopp njàng du baax duñu déglu seen i wujju duñu am njariñ te ñoom ñi leen koy defloo ñu ngi yóbbu seeni doom pour wan leen ñi leen yéen ëllëg yéen a war a ñëw falowaat yilif ñii leen daggali bi ñuy dem vacances États-Unis Londres Paris fu nekk pour wutal leen ay maas wan leen ñi leen yéen ñii ngeen maaseel ñu ñooy seen classe yéen nag ñu jaye ñu rek mband ab mband mu dul jeex tëgg fecc waaw plage boo ci dem da nga naan ban lañu nekk ñoom seen sañi boobu ngay dem di teg seen bët ci ëllëg lan la ñuy bëgg a doon ñoom ñi koy organiser gisoo ci doomu kenn ñu ci def seen alal gisoo ci doomu kenn waaw waaye ñoo nit yeewu nañu rek ba ñu utiliser leen pour màbb l'islam waaw pour màbb l'islam waaw di leen nax ay diplôme ki ay prix ki waaw ba kañ ba kañ su baaxoon seeni doom jiitu ca waaw ah, ndax la gën a baax seeni doom lañu ko yéenee man maa la ko wax waaw ah, bu yàq jotee nag ngi dem yàq doomi jàmbur yi waaw yàq jotee nag ñu dem yàq doomu jàmbur yi waaw pour lan bi taaxuri yustara yi lay jëy nan la danga nga développé developpement développement bi delluwul lu dul ay bâtiment yu tali yu ma xamul fekk yow sa jukka màbb nga ko bu yàgg yàlla konteetul ci yow te bi la yàlla indi fii daf la fi indi pour nga représenté ko sëñ Cheikh nii waaye altuwaay waaye doy na waay é yaa man ala ususil hawaay naa waaye may leen ñu jàmm yéen ñi nga xam ni waaye seen passion ngeen topp rek lu seen bàkkan bëgg rek ngeen tabax ko mu ni man Cheikh Ahmed Tidiane si de ak yéen doom jullit nga xam ne yàllaa leen yitteel akrim kay leen nu yéemu ñun waaw ah, ñii bun nu yéem am na ñeneen ñu nu war akrim bi saadatin banawhu ala alhuda wa ala alhuda bi sakinatin yamshuuna haynuuna law zafiru bi ta'yidi sama aw bil jawaidi haa hum laymuuna waaw ni akrim waaw ñu mu ni ñin ñi nu yéem waaw bi saadatin banawhu ala al huda waaw waaw tabax seen bëgg-bëgg teg ko ci seen bakkan yéemu ñu ñu waaw ñi tabax àddina bi waaw defar seen jukko defar seen ruux teg ko alal huda waaw ci kaw njub ba noppi nag yamshuuna bi sakinatin ala alhuda réussir seen mission ci kaw suuf ba noppi waaw di dox ci kaw suuf ak dal di dox ci kaw suuf ak benn modestie di dox ci kaw suuf te teggiwuñu seen tànk ci dëgg nee ñu boole ca haynuuna waaw ñu yomb dëgg ñu yomb yàlla fu leen dëgg fekk ñu nangu fu leen yàlla fekk keneen ñàkk leen hay nuuna law zafiru bi tayidi sama xoolal loolu dama dem ba asamaan appuyé leen waaw waaw yàlla rabbul izzati wal jabaru dëgëral leen ah ñu dema dem ba di leen dé di leen jox ay diplôme di leen décorer ca kaw asamaan ya waaye haahumu lay nuuna te Cheikh nee na boo leen gisee doo leen xàmmee dulen xamé ci waxin doko xamé ci jëfin ndax wayefal gëna wayefal sen bok te sen tire nga ci kaw asaman يتكلمون كأن في ألفاظهم دررا وفي أصواتهم تلحينا نينا يتكلمون نينا نيوم نجابوتو ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم يوي بني وخ nee na nga nga nga gis ni seen expression yooyu ngi jëfandikoo di mel ni ay doñ ji wurus ah nga ni doñ ji wurus ah gu génn rek fàttali la yàlla kaddu gu génn soppaloo la yàlla ah, ki nga xam ni bu nit ki doon wax tey te bu àddoo rek wurus génn ci gémmiñam ah na na mu la yéemeeg na nga fay nekk di for wurus wa doo tàyyi doo yokkot doo bàyyi ndax xam nga valeur wurus mu ni ñoom njabootu yant yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ciy wax nee na seen expression boobu nee na nee na euh, euh, da mel ni durar wurusu dur mooy génn ci seen gémmiñ yi hmm? ah tabaarakallah sanul xaaliqin waaw dur نين سين فواي سين باتي نين دفاي من لي نيو واخ تلحين اه ملني نين نين لي كومبوزي ميوزيك اه با مو نيه سي سا نوب با بوكاي ديغلو دوتو اندك سا ساغو نين نجابوت ينت يالا محمد صلى الله عليه وسلم نون لا نيو ميلون يجري الحوار يجري الحوار لهم بغير تكلف وهل العنايه تقتضي التمرين نينا tabarkalla la bu ñuy bu ñuy bu ñuy def conversation seen diggante hmm? dañ koy def ak facilité bu mat sëkk ah bi xayri takallufin te nee na wax euh, euh, euh, inaaya jagle waaw li ñu yàlla mooñaale soo ko dee def doo fa nekk di jéem a chercher ay mots yooyu wax ak nooy convaincre nit ñi day facile pour yow waaw li ñuy wax euh, euh, euh, nu mu tuddati politesse xaw ma hypocrite waaw ah, ah, takalluf waaw ah, nee koo gis mu koy def rek nee na xamal ni du waaja waaw nee ku yàlla waajal dëgg dëgg dëgg dëgg nee na booy génnee luy jariñ nee na doo ko lambatu doo ko lambatu doo tricher waaw yajri lahum bi gayri takallufin وهل العناية تقتضي التمرين نسين نعم. آه، شيخ لول ماي لولو ني لغة أتت من حضرة قدسية ولسان كل معلم يحكينا من سين لانغاش ان لانغاش ني جوغي وول في ميغو جيغو تي الحضرة القدسية ها لو آه، بات يي وخ يعني جوجول في دفع سلم من جوجول حضرة القدس ها آه. آه. ها آه. ننك ولسان كل معلم يحكينا ويحكينا لسان كل معلم بطوغيك نيوم تبارك الله تبارك الله دي دغلو سين كادو نين pedagogie بني اندال نين pedagogie يب waaw ah, euh, façon bi ñuy jël pour fexe ba seen li ñuy jàngal nit ñi dugg nee boo toogeeg njabootu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga gis ko ci ñoom fu ñu ko jànge fu ñu ko jànge ah ñu ko nampe ci weenu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah mataqa rasulu biha ka haadin muhtadin wa muwajjihin axlaaquhu takfiina ndeysaan waaw ñu ne ñu ngi ko royee ca sangu sang ya nataqa rasulu biha nataqa rasulu biha ñu ne yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ci ci làmmiñam la génne allahu akbar mu tedd sallallahu alayhi wa sallam waaw mu tedd waaw bu mësaan di waxtaan ak njabootam dañuy fàtte lekk fàtte naan dootuñu xam coono temps bi dañ mel ni dañ ko tënk moom daal kenn du yont yàlla mu sallallahu alayhi wa sallam toog ak moom moo daq aljanna waaw que sayidna abubakar anhu waxoon <laughs> ni ko wallaay ya rasulallah mu ne waaw ni ko maa te bi ni ko xam naa ko de waaw ni ko yaa rasulallah ñett rek a ma neex julusi bayna yadayk wa nadari ilayk wa infaqu mali alayk la ilaha illallah ni ko toog ak yow rek moo ma dàqal lu mu mën a doon moo toog ak yow fàtte lépp yow rek yaay nekk si ma ndeysaan waaw wa nadari ilayk waaw sama bët du teggeeku ci yow waaw ma lay xool sama xol bi di sedd may yéegin ci yàlla sama borom wa infaaqu maali alayka lu ma am ci alal ramas ko booleeg sama bopp jox la ndax lu ma la jox suba balaa ngoon yàlla jox ma lu ko ëpp yaa rasulallah yaa ma jaral lépp sallallahu alayhi wa sallam bu sana waxtaan léeg-léeg ñu ne ko waa yaa rasulallah maa lak af sax nga gënnu gënnu gënnu gënnu éloquent te te te génnoo fii gisuñu université boo jàng formation bu la defal yaa rasulallah mu ne hee lugatu lugatu Ismaïl qad darastu ndeysaan lugatu Ismaïl qad darastu waaw ah, fa jaa Jibril alayhi salaam fa allamaniha waaw ah, sama professeur bi moo ko jàngal nag mooy Seydina Jibril ndax ah, Jibril la maag moom la moom moo ko jàngal moo tax mu ni ana afsaxu man nataqa bi daab benn lang rek mu am xarafu daab muy arab mon sax ku muni ni ku wax arab ku ma sa wax arab ku koy wax ak ku koy waxati ba kérok adina yi tukki mala ëpp éloquence sallallahu alayhi wa sallam motax muni mom serigne moom sëriñ cheikh nataqa rasulu biha waaw yonent bee ko ginni ñu roy ko ci ñom ñu ni bi lu mu représenté ci ñom ñu ni rëy na ba mu ëpp ka hadim waaw ka haadin waaw tabarakallah tabarakallah sallallahu alayhi waaw waaw yent bi seen biir lu muy jariñ mu ni ka haadin waaw waaw comme ko xam ni dañu ko yónni pour mu teg leen ci yoon waaw teg leen ci yoon wi yàlla gërëm ba seen lépp dëppoog yàlla ñu ne waaw ah, mën na ko ndax dafa nekk muhtad waaw ah ki naan tegul ci yoon te moom teguwul ci yoon du yàgg ba nga tegu ci yoon waaye moom nag muhtadin la haadin la ndax muhtadin la teggiwul tànkam ci yoon kon bu la neen nan ànd ci yoon wi nga mën ko tab waaw wa mu wajjihin waaw wa mu wajjihin moom sallallahu alayhi wa sallam ah, وموجه مم صلى الله عليه وسلم آه. آه. خمني كم أوريانت عن تجو تنجو مم سيد الشيخ موني واي تكفينا أخلاقه موني واي بنيرو يلو أوكسيدان بنيرو يلو كن نن بايج يننتي بي جكم داينانو آه. ومعبرين عن سيرة ومسيرة نورا لأخيار الرجال مبينا الله أكبر صلى الله عليه وسلم آه. آه. آه. ومعبر عن سيرة ومسيرة آه. بروفيسور دي جد indi sunna mu firil ñu ci shariatullah li ñu yàlla tëralal waaw waaw mu indi ko moom sallallahu alayhi wa waaw teg ko ci teguwaay bi ko yàlla subhaanahu wa taala teg moom ñu jàngal moo nu wan moo nu orienté waaw teg ñu ci sunna waaw waaw fa waaw waaw teg ñu ci tabarkalla tabarkalla te ku ca jaar rek mu jural la leer goo xam ni da nga xam ni yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokkul ak keneen waaw na boo xam ni boo ko reyee mu jural la nuuran waaw leer googa tabarkalla tabarkalla moo fal sang yi waaw nuuran mubinan li axyaari rijaali jëfee ku jëfe sunnam rek gis résultat yi fa tabarakallah motax tax mu ni la la ara أدب النبي مدورا أو لا أرى هذا التراث مهينا ها؟ لا لا أرى أدب النبي مدورا ها مزور mu ni ñaar mënu ma ko nangu man sëriñ cheikh mu ni di njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bu ñu la xoolee yaram ak tegginam du jeexital ci yow ñi kon da ngay tricher al adabul kadib bu nit ñi toogee nga wane ci sa col ak sa yar ni yonent bi ngoy rey fekk kasib da ngay tromper nit ñi nekkul mu ni mënuma ko nangu di roy yonent bi salallahu alayhi wa sallam te ku la gis xeeb lislaam ku la gis du naw yonent bi mu ni mu ni déedéet am na lu xew nga tricher muni benen bi moy munu ma nangu ndono yent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam héritage am ngay doomu julit héritage yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek fi wa asaman bi ko ñe te ku lay gis nga doye di te nga ni jullit nga wala tahinu julit du doye di yonent bi ngay roy te la gis xeeb bi héritage yonent bi ngay sàmm te gis yaa gën a doye di kuy doye di mu ni mënuma ko maa ngi leen di adressé yéen arab yi ah comme arab yi moom dañ jàpp nañ ni lislaam ci ñoom la yem ah, waaw ah. ba boo xas rek ñu ne ad arabiya al islamiya arab léegi la te bi seen tax tëjee sax lañu ñu nangu der bu ñuul ñun jàpp nañu ni ku dul ñoom yoroo lislaam ñoom arab yi jàpp nañ ni ku sa der weexul sa sikkim guddul solo tubéy bu gàtt di wax ni ñoom nekkoo ci lislaam doo jullit waaw sëñ Cheikh nu waxoon ca kër jëmb waaw mooy sunu professeur de waaw li nga li munu xamal waaw nit jàng na téere yi ba mu jeex te xamuloo ko waaw fa jazaahu llahu an il ummati l muhammadiyati xayra jazaa waaw ndax fexe na ba yàlla rëkkëri yi ci ñun fexe na ba ku ku yàlla nekk ci yow bu ñu la xoolee naw la waaw waaye lu ñuy lu lu ñu soowal nit lu ñu soowal téere bu ñu ko yéree te xam ni borom du kenn ñu découragé ca moo nu ci dimbali moo nu wax ca kër jëmb atam waaw ni réewu arab yëpp kilifa ya fa nekk di ko doxal tey koo ma ci wax tudd turam ma wax la ni la ci drogue lay dund drogue drogue ci lay dund ñu topp ko ñun topp ko yitte gëstu ko ba bare na borom xam-xam bu ñu lay tuddal ci réewu arab ngay daanu waaw te génn na ci lislaam waaw na ci lislaam bu yàgg man maa la ko wax waaw bindi téere def fataawa te boo ko toppee bu àjjuma mu dugg ci juma ji julli bu samdee mu sol robbam dem dugg ca euh, fa bay daje maa la ko wax ñu bëgg ñu reyeeg waaw diw nee na tiire sàngam ak borom xam-xam sàngam Égypte ak dëkk sàngam ak dëkk sàngam ñun xam nañu la xew waaw ah, mag a jiitu ci ñun waaw ah, mag a jiitu ci ñun moo tax mu ni yaa ummatal arabi allati cheytaanuha ma zaala yajhalu taaha yasina ñan ñuy tiitaru naan arab ngeen waaw ñu tiitaru naan arab ngeen am na sax ñiy gàmm di way mimiye mawlana cheikh alhaaji malik radiallahu anhu naan fal urbu xayru unaasin summa xayruhum quraychuhum wa huwa fihim xayru xayrihimi ku ñëw kër ga ma di ko tëralal miimiya atam euh, naa la ma di ko toppal euh, ba ci fal urbu xayru unaasin ma ni ko ah, fii nag noo koy firee mu ne ah ki ma ko jàngaloon doon nee na ma fal urbu arabi xayru unaasin ñoo gën ci nit ñi summa xayruhumu ci biir arab yi nag quraychuhum waa quraysh ñoo ca gën wa huwa moom sallallahu alayhi wa ci biir quraysh ak arab xayru xayrihim yi <laughs> ah, mu leen gën ñoom ñëpp ma ne kaa man nag boobu firi doy ma dama dégg sama professeur Serigne Cheikh firi ko <laughs> ndeysaan ni ko Serigne Cheikh nee na fal urbu arabi xayru unaasin ñoo war a gën ci nit ñi ndax ñoo gën a jege source bi tax nit gën nit summa xayruhum quraychuhum mu ni ci biir arab yi nag quraish ñoo war a gën ci arab ndax ñoom it ñoo am chance su gën a jege source bi tax nit gën nit te moo di ñoo gën a jege yonent bi ñoom la bokk mu ni woowu moom sallallahu alayhi wa sallam nag lu kenn werantewul kenn laam-laameewul xayru xayrihimee waaw leen gën ñoom ñëpp waaw mu ni ma bàyyi naa nañu ma ko firi la woon jël naa bii mu jeex tàkk waaye fal arbu xayru unaasin rek eh, arab yi gën ci nit ñi booy firi téere jàmbur danga nga ko dégg boo ko déggul boo ko firee tooñ jàmbur waaw ah, fal arbu arab yi xayru unaasin war a gën ci nit ñi ku war a gën te gënoo gënoo nga a jëfe ngëneel pour nga gën am nañu chance ñoo gën a jege source bi moo di yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, fal arbu xayru arab yi ñoo war a gën ci nit ñi تخ ньо گنا جاگي سورس با ثم خيرهم قريشهم تي بير عربي وري گن قريش ньо وري گن تي بير عربي تخ ньо ميد امنا نو شانس ньо بوكو اك يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم خيت ньо گنا جاگي سورس بي يننت بي نك موم كان نيرنتو خير خيرهم ني تي گن تي عرب گن تي قريش سينو ني پندم يا أمة العرب التي شيطانها ماذا لا يجهل طه يا سينا ين خيط عرب لاي وخال من شيخ أحمد تيجاني ين نيغا خمني سن شيطاني سن شيطاني سن شيطاني نطنا لين توب بترولك دولار بترولك دولار بينت يالله محمد صلى الله عليه وسلم باركه مريتيلن ليرام مريتيلن خم خم مريتيلن ييب خوت لا ني خوت من مالك واخ نيغا خامني سين شيطان ما زال يجهل طه ياسين دانيل بن غني ديريري يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم لا بو نين ليري وول وور يونت بي توروخت بي لين دال دولين دال di woote rek ñaan ñoo donn lislaam ñoo donn yonent waaye fa daayi turaathan tahtadi xutuwaatuhu naxwa aljihaati sitti fii sittiina mu ni waaye fa daayi waaw waaw foo toll rek ñun arab yi ñoo donn lislaam ñoo donn yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam fa daayi turaathan waaw bàyyil héritage boo xam ni tahtadi xutuwaatuhu waaw tegu na ci yoon bu yàgg waaw moom doona yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di waaxu jéegu ñu rëy bi yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkee ca Makka ak Médine di woote am na fii ci Sénégal fii ci sëncu pir ay mag yu dégg message bi di ñaan yàlla bala ñuy faatu yal na leen yàlla may kàttanu dox ba tegante loxoog yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku héritage ba ba mu solee dàllam waaxul boppam du tey bu doon ci yéen lay sukkandiku pour dem du dem waaw yéen arab bu doon ci yéen la héritage yonent bi di jaar dem du dem waaw topp seen der bu weex ah waaw topp pétrole ak dollar yu sol ay mante soie di lekk tàndarma di naan shaay ay xikaayaat léeb ak lippoon ba xëy alku ba xëy alku ba xëy alku xëy alku noos ba xëy alku alku nañu tubaab yi divisé nañu leen waaw rayante seen biir waaw lu dul jeex dee dëkk ya tàkk bâtiment ya daanu tubaab yi jaar ca gannaaw wëlbatiku di nekk seen pétrole bi di yóbbu waaw te dootuñu jóg ilaa yawmal qiyaamati ce que bu héritage de l'islam yaakaaroon tey dana yegg fi mu yegg jël seeni alal waa di financer ñoo xam ni li ñuy bañ mooy jullit bu yàlla fanaan ci xolam waaw jëlal benn système rek imposer ko nit ñi xam ni kenn du ko jël kenn soxlawu ko nga jël xaalis xëpp leen ñu jël waaw waaw talaw baatilan wa jalaw saariman qaalu sadaqna qulna ey naam waaja nee na nee na nee waa ji dafa dafa dafa fen fen wu rëy ci pénc mi ni na ñëpp ni dëgg la ñépp ni pat mu rocc jaas yi ni ma na ñëpp ni dëgg la ni waaw waaw dëgg la mani waaye ñoom nag dañoo jël seen neen dañoo jël seen neen teg ko ni na ko ñëpp gëm comme l'islam nit ñi lànk ñu jël xaalis génnee ko ni waaye na ñëpp gëm ni lii mooy lislaam lii mooy dëgg lii mooy sunna ñi ñàkk fayda ñëpp ni am lii mooy sunna ku ci newul newoo ci dara sunna laa hawla wala quwata illa billahi al aliy al azim ah. Ah. Ah, ñu roy sunna yërënt bi yëpp dañu dee di dund maa la ko wax dañu dee di dund waaw mut fi l xayaat taish fi diin boo demee fii ci suufu Sénégal fekk fi ñu roy sunna yonent bi ba mu jeex sallallahu alayhi wa sallam waaw moo tax sëñ Muniru Sarr daan wax naan màkk ñoo nu gën mag ñu jëkk waaye ñoo leen gën mag ñu mujj mooy dëgg yonent bi ak saxaabaam yi njabootam kenn gënu leen waaye bu leen weesoo sunu mag ñi fii kenn seenul seen pënd فدعي تراثا تهتدي خطواته نحو الجهات الست ñoo xam ni so li héritage yonent bi sol na dàllam bu yàgg yàlla ko doxloo waaw dugg na ci juróom benn xibla yëpp waaw ah ah fi sittina ca dans les années soixante l'islam tabarkalla tabarkalla ñoo nekkoon gan ci lislaam ñoo gën a dund lislaam ñi mu cosaanoo ci ñoom ah waaw ñu ni fan lañ koy xàmmee ñu ni min sha'lihi bi fi'li tajdidul ixaa bayna al jawahiri wa tabaii fiina héritage yu lislaam bu yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ne boo ko jëlee waaw ñu ne fexe ba nga nite waaw ndax day jëli valeur ya ca kaw fexe ba mooñ kaak sa sa sa sa sa tabia waaw te nit ñaar la ruux bi dëkk ci kaw ak yaram bi nekk ci suuf rabe waaw am day fexe ba seexale ruux bi nekk ak sa ak sa tabia say jukko nga doon sang waaw nga nekk sang piir waaw min baadi tadkiyati l hawa bi rushdihi وتتبع الأديان دينا دينا غناو آه، بيغا خامي ني هيريتاج يونت بي صلى الله عليه وسلم دا فاي يار سا بكان سلال كو اه, آه، ديف كو تي نيب اه اه, آه، تنك لا نك تي دين دين ينت يالا محمد صلى الله عليه وسلم اه ديني يك جيتو ون ييب la nga xam ni moo ci wér kenn soppiwu ko waaw ngay topp waaw benn par benn di ko sélectionné benn par benn ba xëy doon sang di dox ci kaw suuf tere ne la waa asamaan waaw xata staqaamal kullu duuna siyaasatin waaw nee moom ñu topp ba ñëpp jub ñëpp jub waaw te formewul parti politique campagne ul mitingul sallallahu alayhi waaw xatta staqaamal kullu duuna siyaasatin waaw ah, teguñu ko ci politik boo xam ni lam tuxni ni la rëcha wa taxmina waaw ah, jariñul nit ñi lu dul ger ger corruption waaw ah, wa taxmina ak tappale gu bare waaw boo bëggee nax nit ñi rekk la eh, eh, tabarkalla la lu ne danga koy estimer doo ko jox àkkam nga leen di estimer rek ah, tabarkal la tabarkal la xelu jàmm yi ñaqu jàmm yi deretu jàmm yi lu mën a doon doo leen jox valeur bi ci war waaw ah, rek di nax nit ñi waaw ah, nit ki ñëw indi marchandise buy jar cent mille francs nga ni ko kii de estimé naa ko xam naa ni normalement douze mille francs boo boo ko amee war nga ko am ndax nit ñi rek nee na looluy politique àdduna ngi bokk la bu yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw wa tamaddanat ardul ilahi xaqiqatan wa tanaamat li tuxarrira al miskina waaw wa tuammina al bayta sharifa an il ada wa an il ada li tuammima tamina waaw wa taadaba dinaaru rafdan lirriba wa taraja al batshu dalumu kamina waaye asxaabuhu moom yonent bi احزابه moom يوننت بي هم قومه لم يقبلوا بصفوفهم قارون ردوا ردوا عن الغبراء كيد عدوها أو صار كيد عدوها مغبونا حتى صار آه، أو صار حتى صار نكوي فيري آه، قد فرت الفحشاء عن خيراتها أو فر عنها الفقر بعد ذمينا فبكى فبكى بصوت ناهق ومعذب إبليس حتى أضحك القانون آه، إلا بغاة الغرب باستغلالهم يستدركون تراثه المدفون الكفر والإشراك ضمن تكاثر فتحيروا واستحكموا الصهيون فظواهر الأشياء ليست وحدها صورا تقود الأرض حينا حينا وتبارك الله أحسن الخالقين جزاه الله عن الأمة المحمدية خير الجزاء تبارك الله أحسن الخالقين ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci ñaan yi encouragement yi ñi dugg ak ñi bëggoon dugg te dugg ñu ñëpp ak ñi préféré déglu bañ a woote ñëpp fa tabarakallahu yal nañu yàlla boole yiw wi seen mbokkum taalibe alxaaji Abdoul Aziz Fall mo newon ci dara ji yal na yàlla defal mucc ak mucc la wér ak wér la dund ak dund la allahuma arham ibadaka wa biladak wa sallallahu ala rasul wa ala ali rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh